mbokki jullit yi bu ñuy xool nag ci jamono ju jii ci réew mii nu xam ñuy làkk ci réew mi ay làkk yoo xam ne ñépp xam nañ lu muy tekk ku xool diggante nit ñi ak seen borom danga xam ne nit ñu bari nag romb nañ maanaam ligne rouge yañ leen rëddaloon ci seen diggante ak seen borom ci foye yàlla ci foye borom asamaan ak suuf waaye ci ñàkk ay teggin lool jëme ca borom bi subhaanahu wa taala waaye jalgati ci jëmmi yàlla ji jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu ci loo xam ni képp ku xam ku ne war ngaa xam ni loolu day mën naa indi merom yàlla ndax moo daan indi merom yàlla fa lamma aasafuuna intaqa intaqamnaa minhum yàlla nee na bañ ñu merloo ca lañ fayu ci ñoom te fayu gi yàlla xajut ñun ndax inna batsha rabbika la shadid sa téyeg borom bu la xasse ne tey koko koko koko jafe koko metti na wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna axdahu alimun shadid mbokk julit lan lanu setlu nak ci jamono ji ay nit diko ko wax ñoo xam ne jànguñu daray diine dara ba dara booloo jeex manam bu doon diine dañuy wax ni feruñ fi idji munuñu caa lire yàlla nag nattu na leen mbooloo mu bari topp ci seen ginnaaw loola def ci ñoom ak mbew akuk rëy akuk ñàkk xam amuñu ku ñuy attaqué ku dul borom asamaan ak suuf mbokk julli yi ab jaam bu taxawee di jàkkaarloo ak yàlla mi bindi asamaan bindi suuf naan ko boo deful nangam a xeex ak yow boo deful nangam dinaa xeex ak yow. si mës naa ko wax tey laa koy waxaat. yalla bu la fayé ma xex ak mom ndax yalla ak mbaaxam li ngand ngand doyuma ci yow li nga liggé ci ñun si yow yalla du la fay man ma lay fay bu mu ko narul yalla na yàqu aduna àllaaxir ak leneen du ci mëna ñëw nit ñi di la kan lay waxal bo deful nangam yalla ma dal ci sa kaw nit ñi di dégg lool ci seeni nopp ñu di dégg lool ñoo doon marche ni dafa am ko saaga yonentu bi dafa am ko caricature yonentu bi ñi wacc ci mbedd mi sa dafa am lu paradoxal lo xamanteni nit ñi mënu mënu nit mënu ko comprendre nan lay mëna dajé daje ci nit nan ngay mëna génné di marche ni dañoo am ko saaga yonentu bi wala am ko caricature yonentu bi sallallahu alaihi wasallam gis ko saaga yalla nga ni miix ci sam rew senegal gi bu fi jógatee di marche nan dañoo wax ni yonentu bi wala dox wax ni yonentu bi man dama dul xam ñoñu ban yonentu lañuy wax xana waxu ñu yonentu bi nga xamanteni yalla moko ko bind yonent bi luma am ci teranga yalla moko ko jox senegal gogul ay domam taxaw di jalgati ci yalla subhanahu wa taala ñu setan ko te ko waxon ceerub lolu jëme ko ci ben serigne ñu bëgg faat sa bakkan ndax ñun dañu bëgg jël suñu serigne ñi def leen ñu teg nekk ci kaw kaw kaw yalla ndax dañoo bëgg japp ni serigne ci ñoo ba wax ci borom bi subhanahu wa taala ak lu la neex ci ñëk ci te so waxe lu mu tuti du ñuy la jublu di tamul di la menace pour ray la réew mii bu ñu amee jàmm yàllaa baax rek waaye yow mu réew mii lépp luy xeetu toroxtaange ak fitna war naa wàcc seen kaw mbokk jullit yi li gën a néew ci nit ku dégg ñaawtee fu mel noonu mooy nga ñaaw lu ko ci sa kàddu ñi am kàddu nañ wax xale boobu di génn di attaqué yàlla guddi bëccëg nañ téye ci ab loxoom bu dee am nañ mbokk li muy wax ñaaw na ba fa ñaaw yem li muy jëme ci borom bi ñaaw na ba fa kàddu ñaaw yem te kenn femm wu ko te lu mu wax tey bu subaa mu wax lu gën a ñaaw loolu